milliards wala deux mille milliards Touba mos koo am bu dee côté infrastructure dafa des bu dee côté société sociale dafa des waaye nag li mu gën a dut baaraam mooy côté assainissement loolu da ko intéressé loolu ñu gis avec ces de problème ci biir Touba li wër corniche bi ñu gis des populations yoo xamante ni tey jii seen dignité dafa dafa dafa wureeku loolu lépp c'est des citoyens yoo xamante ni dañoo war a vivre paisiblement comme que nekk Almadies ñëw na également si dëkk bi li ñu ko lay taayee mooy laïcité moo nekk si suñu constitution ndax ñu yoruñu république islamique mais dañu yor une république bu basé wu si li fi tubaab bi bàyyi comme France ne muy doxalee daanaka ñoo ndóole sax boo xoolee constitution tuuti nga siy génn rek loo xamante ni maanaam mooy firndeel ni am na ay différence ñëw na également si démocratie ni ko sénégalais yi gisee. te démocratie boobu bu ñu ko dawale woon yoon sax peut-être que gisinam jàpp na ni Touba da ëpp la si wàllum investissement ak si lépp loo xamante ni askan day tax ñu dund gu yemb ak yeneen ak yeneen bala ñuy tàmbali rek dañuy ñëw si sëñ Amadou Ndiaye Nguirane mu defal ñu rek benn analyse bu gàtt rek par rapport tey lii mu dégg Cheikh Bass wax ko aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi dawi ridwani wa tamkin bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki talibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara noo ngi jiital ci nuyoo bi kilifa yoon wi cheikh muhammadul muntaqa di ñaan suñ borom wan nu kiimaanu gudd fan ci jëmmam li ko mag ñi bàyyee mu di ko sàmm yàlla bu ci dara suut yàlla na ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ña doon mébét barakat Cheikhul Xadim di ziyaare mboolem usura xadimiya bi yëpp di ñaanal suñ boroom gën leen a sàmm gën leen a aar gën leen a taxaw di ziyaare boroom barab bi di Cheikh Abdou Samad di ñaan suñ borom dëbb ko kàttan ba yéene ji mu am ci liggéeyal cheikhul xadim suñ borom defal ko ci lu kawe njortam barakat cheikhul xadim di ziyaare bu baax a baax mbokk yi ñu seqal plateau bi di ziyaare bu baax a baax itam mboolem auditeurs yi nga xamante ni ñoo ngi déglu moo xam ci tele bi la moo xam ci rajo bi moo xam ci biir réew mi la ak bitim réew noo ngi ñaanal ñëpp yërmande suñu borom ak njëggalam barkeb sëñ Tuubaa di dellusiwaat rekk di jëkkante ak waxtu wi di wax ci discours bi nga xamante ne ni Serigne Cheikh Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdou Khadir euh, def na ko muy wax joo xamante ni yëkkati na ko jëme ko ci dëkk bi muy wax joo xamante ne ni tege na ci xam-xam tege na ci ab yar tege na itam ci ay teggin maîtrisé na itam bu baax a baax li muy wax du lu mu làmbatu ndax bari na ci yoo xamante ni ni biñ koy def ma nga ca kon du du du lu mu làmbatu muy wax joo xamante ni it ñëw na ci ci ci waxtoom dëkk bi itam laaj na ko bu baax a baax fa tabaarakallaa dëkk bi nit ñi fi nekk dañuy nit ñoo xamante ne ni dañ leen a yar te yar diine moo koy def mooy tax comportement yi ñu amee nu man koo dundee ak situation yi ñuy dund ndax diine ni muy yare ak njabootam mooy loo bëgg danga koy wuti waaye loo ñàkkit danga koy muñ ndax dañuy jàpp rekk ni uh, coobare yi suñ boroom ak doogalam moo tërale noonu waaye da ci am nag yenn yoo xamante ni dangay jàpp ni séddalin wu jaarut yoon mën na koo indi walla sag yaafuus yow ci sa bopp mën na la koo teg yooyu nag euh, yu bare bari la yoo xamante ne ni euh, nit da koy sóoraale bu baax a baax ci diggante ak ñi mu seqal euh, su ko defee nag Tuubaa ci boppam bala ngaa wax ci kàddu gi mooy da ngay wax dëkk bi barab la boo xamante ne nii sëñ Tuubaa ku sanc ci la ko sanc dëppoo ak 1306 ci gàddaay gi bi mu koy sanc itam jaamu yàlla moo tax mu sañc ko te loolu moo nu fi indi daa am lu nu fi taxane ak lu nu fi tax a nekk li nu fi taxane mooy jaamu yàlla luy tax nu man fee ne mooy liggéey te euh, loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni da ngay liggéey sa àdduna ba mel ni doo fi jóg waaye bàyyi xel sa àllaaxira ba jàpp ni doo fanaan kon dëkk bi dëkkub jaamukaayu yàlla la waaye dëkkub jaamukaayu yàlla la waaye nag dafay ànd ak yoo xamante ne ni mooy tax jaamu yàlla gi mën a sotti te mooy ay liggéeyukaay juttukaay sëriñ bi ko sanc nag mel na ni am na lum ci xamal boppam lu ko suñ borom xamal ci xam-xamu biir am naan inni askantu min zuriyati bi waadin xayri si saran inda baytikal muharram hmm. kon am na am na am na lum ci xam ndax damay wax ni Touba sëñ bii sañ ci amul aw yoon jegewut géej dex nekku fi pétrole feeñagu fi or ak jamaa gisaguñ ko fi suuf si nanguwut mbay climat bi tàng na ndoxum naan jafe na fi ba pare nit ñi di dalaf dalaf di fi wut si sëñ Touba mi fi nekk rek <laughs> waaw loolu sëñ Touba rek mi fi nekk moom moo tax ñu naan Touba mooy deuxième capital réew mi mu nekk ci population bu ko dëkkee ak yaatuwaay. loolu avantage la boo xamante ne ni noonu am nan ko tey li nu ci dimbali mooy gëm gi nu gëm suñu borom te yaakaar ko te xam ne lépp ci loxoy suñu borom la ne ndax yooyu ñuy wax yépp luy dimbali doomu aadama ci aw nekkinam ci kaw suuf la. te yàlla yor na leneen lu mën a dimbali doomu aadama lu dul loolu ñu xam ndax toujours dangay wax ni eh, liggéey benn jumtukaay la ci luy tax nit mën a dund waaye am na yeneen yu suñ borom mën a jaarale wërsëg ba jox ko nit te du doon liggéey wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan wa yarsuqu min haysu laa yahtasib ragal yàlla képp dana joxe wërsëg mm-hmm. dëkke istixfaar day dana joxe wërsëg istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursilu sama aleykum midraara wa yumditkum bi amwaalin wa na loolu dana julli dana joxe dana joxe wërsëg ak ak yeneen wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu kon bari na ay facteurs yoo xamante ni ni ci biir yarub diine bi nu yar moom lañu àndal moo tax nu mën a toog Tuuba ci situation bii mu ne ba pare suñ conscience tranquille nga xam ne ku ci tëdd mën ngaa nelaw ndax buñ delluwaatee ci discours bi sëñ Cheikh Bassirou Mbacke di wax mooy gis na ni Tuuba ci boppam waxuma aspect religieux bi waaye su fekkoon ab dëkk la rek boo xamante ni ni jóoba ko sanc walla njaay walla naneen am na lu ci war état nim ko waree ci Ndakaaru fekkee dayo bii mu am ak population bii fi nekk aspirologie bi doo doo doo la ñëw muy cërub Sëñ Tuubaa boo xam ne suñ borom moo ko jox ci ku nangu ak ku gàntu yàlla la soob mu def ko ni mu ko def muy jiital ko ci léppam suñ borom faral ko ci lépp ndax damay wax ni màkka ñaan gu nangoo fa nekk màkk ci boppam ñaan gu nangu rekk fa nekk hmm. ñaan gu nangu googee fa nekk Ibrahima ma ko ñaan ak bi ñaan gi di nangu sore na sëñ Tuubaa ñaan fii ñaan gu nangoo fi ne fonctionnaire bëriwu fi daanaka ay industrie néewu fi ay daanaka ñi fi góor góorgóorlu mooy commerçant yi ak tukkikat yi bañ nañ fi sax ba dëkk bi ku lay leb danaa la lebal ma ba sëñ bi ñëw waaye duñ la wax la cinq duñ la wax la 15 ba sëñ bi ñëw lañ lay kon am nañ gëm-gëm boo xamante ni nii wóor nañ ni ñaanuk sëñ Tuubaa gii mu ñaan balaa yàgg danañ ci teg suñu bopp te loolu fés na bu baax a baax muy bi muy sañ ci dëkk bi ci mbaarum ngeer la ne bind mat Matlabul Fawzayni lim bëgg ci dëkk bi ak lim ñaan boroomam te loolu fi mu toll nii bari na ci yoo xamante ne ni bayit wu mën nañ koo jàng teg ci baaraam ni lii la doon wax te nag fa mu jëm àggu fa mm-hmm. waaw fa mu jëm moom àggu fa ah, si ubbi boobu am na solo dinañ ñëwaat sax doyal ñu sëñ Moustapha Saliou euh, Diouf ñu gis ni sëñ Amadou li mu indi mooy wane nii ki sañ ci Touba daanaka wane na yoon wi am na projet de société waaye dañuy dox nag ba jamono dugganteeg mbir yi tey Touba mi ngi jóge ci village ñëw ci commune.